xees tëdd yi ngay tëdd ci koor gi moo lay sonal lii mooy yokk solo loof baax na rek. solo waay. booy nga yaakaar ni ci biir gën ko sedd fi yow. fépp a yem da ngay jug te daay ji. lii moom fépp a yem. booy ñaata jour la ci koor yi. Hmm. bu ma ko sax wàññi xam naa ni daal. ñu ngi commencé woor di wàcc waaye pour wàññi ko di jàpp ko nii loolu ku loolu bu baaxul ci koor damay sonal. ah ñuy woor di wàcc. waaw waaw man de ku warul sax man maa war a wàcc man. kii nag moom paa bi nag moom ren dafa saboté suñu koor yi. bàyyi ko rek bàyyi ko man yéen yu ma jox ma ko sol de. man du ma ko jullee man. léegi daamine daamine ba ba ci suuf. day saboté suñu law la yëpp solo law la ñëpp a solo. yaa des yaa dafa saboté suñu suñu suñu suñu suñu bind. man dootuma ko jox ñun ñoo nekk ci weeru koor ñooy woor waaye xar mi wóoru ay waay ngir yàlla dimbali xar mi jox may ko mu lekk. wax naa ko wax naa ko baro waxoon naa mu may ko ndox. mun naa banamaa dee xaas yi boo ko waxee wax rek mu ne wax naa ko baro mais ni mu war noonu la waree. ay waay ji may yërëm leen ko may ne xar mi mu mu naan xar mi wóorul ñun ñoo wóor ah. ci kii mi ngi ci xar yi. kii daa nekk ci ñun. waaw ah. ci nit ñi ngeen ne ci xar yi. non affaire yi du xar yi de. waaw ah. toog rek may xar yi ndox. Hmm? joxe repas joxe ngooñ. waaw bàyyi hmm? rek ñun suñu yëre julli yi amaguñ ko boobu ba tey loolu la war a lijjanti. non ren ren ren julli jiwu ma de. Eh, yow yaa man ah, du julli ji. waaw ma fa dugg mukk. waaw. Ah. loolu ñëw ci eh, am na ku may seet xam xam naa bor li daf may fekk si bor te man tamit lu ma lu ma koor laa ne maa sonn. man tamit mu xuloo tolu xeex bu ñëwee ñu ne ko néew fi da nga ñëw astaxfirullah man itam man astaxfirullah astaxfirullah

maaleykum salaam. maaleykum salaam. yaa sant. Seck la Mbour. Seck noo tudd yow. Xaasim Seck Xaasim Seck. waaw. Ah. yow. Mame Baro keroog bi ñu leen di tudd ak Imaam. Mhm. laa leen gëj a gis. dëgg la kay waaw na ngeen def. dëgg la dëgg la dëgg la maa ngi seen Pape Babacar Mbour. ah xaritu papa boobu. waaw Mbour Mbour. Ah, waaw na ngeen def. ñu ngi nii rek papa ñu ngi sant ji. ah ba soriwu ci suba la génn dégg naa ko mu doon tàggoo naan kawlax kawlax de kawlax moom bàyyi na fi kawlax de waaw ndax maanaam daam ju maasu alaaj daam ju maasu moo ma boole ak moom ndax dafa xam sama diggante ak moom xam hmm. ni noo bokk nu yàlla général l'islam ba alaaj mbay doon da hmm. mu tànnoon ma nag tànn juróom ñaari nit kenn hmm. ku ne mu jox la 650 mille bàyyi seex nag da ko caa boole te meyaame la ma wax léegi daal su ñëwee def na def na erreur. waroon ko fay fekk ndax nee naa la ma wax. léegi nag ko Pape Babacar Mboup ñëwoon na fi bu ngeen ko waxee loolu rek ko daam jiw ba asaka rek moom xam na. incha allah waaw maa ngi dem. jërëjëf jërë ngeen def góorgóorlu leen nag. incha allah ngeen la dëgg la jaajëf. dëgg la. xoolal li xoolal li kii lay la. damaa xam sax kan lay wax. waaw mais affaire yi lan mo man xawma lan la sax man man man sama papa man ni mi def ni man man dama jaxal ñew ne hmm waa ji. am na ko am na ko fi ñëw de. am na ko fi ñëw de. ken babakar mu babakar mu babakar mu Babacar babakar mu Babacar ñew na fi legi neena Pa dam job masour mo len bolé waaw mi ngi noonu di dem. legi nak mi ngi noonu di dem. ñu daal dal wax na daal ba tudd. mais xamu leen dañ koo xam. waaw Babacar mu bokk jàkk ji bu bu ma dee def loolu nag yow tamit. ah waaw wax dëgg may seet nekk ku ma fi nee leen ko si. mais ko sax et puis papa ñu def loolu. Babacar moom ñun Babacar moom su ma dee su ma la. waaye papa nag yow tamit. non non yéen amu leen benn technique amu leen benn technique ngeen koo xam bu ñëwee fii da ngeen ko war a bàyyi mu rentré a kër gi. yéen daal ñu ngi noonu mu Ayaz, fay jalla. Na né? nga ñëw kër gi léegi. waaw léegi fa la jëm. sa waay não sa waay mat. não ne ma dem não noonu am defal. asma bi. ah bi não da ko def amuloo kenn ku ne não amuloo bind ci sa tur. waaw waaw ku ne mu def ko não yoon par personne six não cinquante mille. waa léegi nga bàyyi ko amul bopp. ba ba kat mais am na la ma wax jox ma aw këyit mu ñu descente ak signé. ah não não não não não não não não não não não não xamoo ko yàqu ma ko yàqu yàqu bi ma ñëwee xale yi ne ma da nga dem kaw la may leen bàyyi na fi kaw non maa ngi ci biir ah déedéet man maa ngi nii sama wer di yàqu guddeel doon ko doon ko doon dab dab si ma ñëw sama ka ni ma nekkoo fi non non baa moo bàyyi façon yooyu non bàyyi du bàyyi façon yooyu sa yoon niwu ci ah. mais daanaka boo ñëwee sama kër fekk ma foofu nga bàyyi nga bàyyi ko xale yi ma bàyyi mais amee lañ ma wax mais amee lañ ma wax yaa ngi ni ñaari fan gis ñu la jàkka ja da ngaa dugg ci lu xool rek yàlla séddale téere yi kaamil yi ñu di ko jàng ah bi yoon bi laa ko séddale. waxuñu yooyu enveloppe ah, bi la ñu. waaw fi dem na delloo daal. ma ne ko so da nga soxla dara ah, yëgul foofu de. boo ko jëm suba kër ma dina ma dina ma dina d'abord sa bañ sa intérêt fekkuma la fa nga dima font. non da nga soxla boo ko dama ni. non non non non sama da nga soxla di ma dépassé. waaw na nga daan def rek. non yow da nga soxla rek. loolu man maa la soxla trop. waaw ah, baax na àggul foofu rek. waaw kon léegi wala nga àndal dem na. dem na dem na yow da nga soxla. ah dem na de xanaa beneen

weeru ak seen sa suprématie la chaîne est leader même dans la sous-région dans la catégorie des chaînes publiques de l'espace UMOA la RTS est première devant la télévision de Côte d'Ivoire et Télé Sahel à l'échelle nationale dans la catégorie des chaînes de télévision publiques et privées. Walf TV et 2 TV s'adjugent respectivement la deuxième et troisième place. La RTS Télévision est donc